abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmmu mbokki internet yi gannaaw nag situation actuelle ba nga xam ne rek mu nga doon am foofale ca cité kër góor gi ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Pastef rawatina waa yeewi askan wi gannaaw nag jàkkaarloo bi nga xam ne rek dox na ci seen diggante ak takk der yi te mën nañ ña la ko waral du leen lu dul rek gannaaw nag ñàkk autorisation ba nga xam ne rek ñàkk nañ ko autorisation te bëggoon a def nag benn marche bu nga xam ne rek dañ ci dem fa ki nga xam ne moom mooy seen leader di président Ousmane Sonko tax nag ñii di dal te ñoom ñi mën nañ sàkk woon nañ li nga xam ne rek moom mooy demande ci ki nga xam ne moom mooy préfet bu Dakar wante kat lam defoon du lenn lu dul rek euh, daal di leen woon a jot a gàntal te gàntal googee mën nañ ne sax moom moo waraloon ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Pastef rawatina sax ñi nga xam ne ñu ñooy waa askan wi ne woon kat loolee teguñu ko si yoon ndaxte depuis boobu ba tey ñi ngi gis ay demande yu nga xam ne ñu ngi koy teg ci taabalu préfet wantekat kat da leen koy lànkal tax nag tey ab jaamarloo bu mettee métti jotoon a commencé di dox ci diggante takk der yi foofee ca cité kër góor gi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy xale yi mën nañ ne sax ba jamono bi ñu toll nii ñu gis nag ñu nga xam ne rek ñu ngay wëyal mbir minimel te li ko waral nag du lenn lu dul rek fas yéene yeewi ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko ca tënk boobu nga xam ne gis nañ ne depuis booba ba tey ma nga daal di tëdd mën nañ ne donte le demul kaso wante kat ma nga kaso ca biir këram ne kat fañ ko yeew ba tey yeeweeguñ ko di gi nga xam yi mën nañ ne ma nga fa daal di toog mënatul a génn mënatul a dem mënatul a dikk loolee nekk mbir mu nga xam ni rek mu doy waar doy waar la ci jamono bi ñu toll nii.